ci revue de presse bi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye euh, Mahmoud. oui Pape. na nga doxale cool maa ngi nii rek Mamadou Mouhamed Ndiaye taxawaayam jar na 14 milliards ak 244 déedéet non xam nga Pape gis nga boo nekkee reporter yàgg ci terrain bi. waaw booy taxaw nu ne dañ ko taxee da ngay sonn taxaw nii taxaw nii booy interview nu ne dañ ko def loolu moom ma ci dugal mel ni Amina Poté bu ñu moytul tey mu tëdd de tey moom xam naa ne day tëdd Amina moom li muy def ci Amina Poté taxawatul gis xam naa day ëndaale lal teg ko ci plateau bi parce que am na surprise boo xamante ni euh, di ko gis après journalu 10 heures bi lan la Amina Poté di mijoté man day xaw ma ko waaye baa nga ko gis muy ñuut ñuuti ci ginnaaw rek lay <laughs> mijoté pour yéen mais nar nar na garaaw tey. Pape Amina li mu nar def ci li mu mën a def ci télé bi tëdd ci gën a sedd. ah. toog télé bi tëdd moo ci gën lu ne sañ na ko. ah da ngay wax. non damay kii damay leeral rek. <laughs> boo ma ma ñu dem ngir yàlla dimbali. tey dafa am trafic. trafic waaw. jërë ngeen jëf. door ci observateur mi xëy dikk ak ñun ci lii ci xëtam njëkk mu di waa Macky yi nga xam ne journal bi ne nañu seen yéene seen bëgg-bëgg moo doonoon daje ak ki nga xam ne moom moo di président Macky Sall ndax ko ñoom nag moom dalal na leen naka démb ca salle des banques waaye daanaka seen misère seen i coonoy àdduna seen jafe-jafe loolee lañ doon wax président Macky Sall wax nañu ko ci coono bi ñuy nekkee ngir mën am ay dëkkuwaay wax nañu ko ci coono bi ñuy nekkee ngir seen i doom yi mën a fay seen bi ñuy nekkee ngir mën a assurer seen transport ci ñoo ngi koy dund ñoom waa Macky 2012 nañu ko démb président Macky Sall bi nañu Macky lam leen sant moo dinañ ko defal ay proposition dans l'urgence wax leen loo xamante ni mën a jàpp ba mën leen cee jàppale xamal na leen ne ñoom ñëpp du ñëpp mën a nekk ci gouvernement bi mais dinañ seet nu ñu leen taxawoo leneen loolu di observateur nee moom euh, am na ca ndaje ma mooy bi ñu waxtaane ba pare président Macky daf leen a benn déjeuner maanaam ndax nee na bu weesoo sax waxtaan wi nga xam ne waxtaan nañ ko ak président de la république ak li nga xamante ne ko terewul wax na leen ay dëggam li nga xamante ne ko def ñi nga xam nañu wa moo ko leeral eh, eh, ñi nga xamante xamante ne ji dañoo bëgg taxaw doon candidat ci présidentielle ñu xam fan lañu féete ñi nga xamante ne dañoo bëgg a ànd ak man it ñu xam fan la féete direct info dikk ci loo xamante ne ñu neen nañ ko bàyyi xel mu di remaniement bu nar am ci gouvernement bu Sénégal yéen kaay bi nañu ñaari ministre ngi ba ci ñett bokk na ci Aly Ngouille Ndiaye ministre mine bokk na it ci Abdoulaye Diouf Sarr ministre tourisme ak kan Mary Teuw Niane bi nañu remaniement bu amee li ñu yoroon mu di seen département bu ñu ko ñàkkul it aw yoon ñu nangu ko joxaat leen leneen ndax ku ci nekk mu di Abdoulaye Diouf Sarr di euh, Aly Ngouille di Mary Teuw Niane ku ci nekk fañ la teg daanaka coow nga fa jur moo tax euh, bu ñu sàgganul dana am beneen remaniement ñu dem ci grand place fekki fa Modou Diagne Fada démb dégg nañu ko ci le témoin wala boog am na lu ñu ko bindal ci le témoin jëm ci ne moom moo ne bu ko Abdoulaye Wade joxul Parti démocratique Sénégal dafay euh, bàyyi dem yoonam Modou Diagne Fada weddi ko c'est faux beneen mu di Khalifa Sall maire bu Dakar Khalifa Sall ak mouvement bi nga xam ne ñoo ko samp ngir mu doon candidat ci présidentielle yi 2017 yi def ceeb jàngat moo di lan teg na pression Tanor mais sax ci presse bi la ko jaare presse boobee ak leneen loo xam ne xëy nañ ko tey ñu dem xool yi yéenekaay bi nga xam ne moo di las dikk ñun ci lu aju ci étudiant bi nga xamante ne moo di Mamadou Diop mooy étudiant bi fi camion police bi wàlloon ca place Obélisque yi nga xam ne tudd nañ leen ci moom i le mbir libération nañu lu aju ci ñaari policiers yooyee bokk na ci ki nga xamante ji moom mooy ki doon dawal dragon bi ak assistant jamono ji kon eh, njëkk ma leneen loo xamante ji dama bëgg kon ñu gisandoo ko lii yéenekaay bi nañu ma nga amee ci diwanu kër Momar Sarr benn waay boo xam ne ñaari jabar la am mais waa ji dafa bàyyi jabar yi dem di doxaane jabar yi bàyyi ba mu génn ñu topp ko dem fekk ko ci kër bi dóor ko ba mu mujjee urgence li mu leen jural nag ñoom ñaari wujj yi journal bi nañu moo di ña nga ca kaso bu Louga Pape. merci allez au revoir Mamadou Mohamed Ndiaye rediffusion bi dégg <laughs> nga rediffusion replay revue de presse bi ci YouTube bi merci.